asalaamaaleykum mbooloo mi ma dëttal leen xibaar bu bàyyeekoo ci ministère bi ñu dënk wér gu yaram askan bi jëmme ko ci mbas mi tey bésu altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñuy dënk wér gu yaram askan bi jot na résultat examen virologique ñu ñuy waaj a lim ci ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yu ñuy def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif maanaam téeméer ak fukk ak benn cas contact mooy ñu jotoon a jàngoro ak ñi amoon doomu jàngoro bi ñaari cas importé bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoom ñoo amee doomi jàngoro bi te xamuñu fi ñu ko jëlee ñi leen naan cas communautaire wala transmission communautaire ci ñooñu fukk ak ñett lañ nemmeeku ca Ndar Saint-Louis juróom-ñeent ca Thiès juróom-ñett ca Maris juróom-ñaar ca Rufisque Saly ak Touba juróom-benn ca Mermoz juróom ca Bakel ak Dakar Plateau ñeent ca kawlak ak mbuur ñett ca Amitié 2 Cambérène jurbel Liberté 6 Wakam Ouest Foire Popenguine ak Richard Toll ñaar ca Amitié 1 Benn Tali Cité Fadia Jëppal Matam Passy ak Sokone benn ca Almadi Amitié 3 Koki Daara Jaxaaw Jamñaajo Fatick Golf Sud Gossas Guinguinéo Gueule Tapée Hamo HLM Grand Médine Kaffrine Kër Massar Kër Momar Sarr Liberté 3 Liberté 5 Mamel Mbacké Mbao Médina Yoro Foulah Mékhé Ngor Virage Parcelles Assainies Patte d'Oie Ranérou Rebeuss Sacré-Cœur Sicap Foire Sicap Liberté Tamba Caajaay Vélingara Yara Yëmbal Yoof zone A ak zone B ñaar téeméer ak juróomi malade ci ñu ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom fukk ak benn malade ñoo ngi réanimation juróom ñaar malade ñàkk nañ seen bakkan bësu dëmb dibeer ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi ñu des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas njëkk Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñeent ak juróom-ñeent ak juróom fukk ak ñett cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn wir nañu juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci hôpital yi ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan mi mu ngi leen di ñaax ngeen sàmmoont ak digle yu ñu joxe maanaam nañu tàkk suñu masque saa su ne ñuy raxasu saa su ne ak ndox ak saabu wala ñu utiliser gel hydroalcoolique ñi continuer di dandante lu tollu mètre suñ diggante boole ci bañ dajaloo di wàññi suñu dem ak dikk yi ñoo ngi leen di gërëm